asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki taalibe ñu ngi leen nuyu baax te di leen siyaare bu baax ñu ngi jiital ci nuyu bi ak siyaare bi itam seen di Fall mi sëñ Modou Mbenda mi nga xam ne moo fi nekkal maam Serigne ñu ñaan suñ borom nag yàlla na fi gën a yàggal te wéral ko ba lim naan lépp ngi liggéeyal ko maam Serigne Fall mu def ko ni mu ko soobee te ñànd ko moom barakati maam Serigne Fall ba mu mur dina moom mi fi seero fal nag ñi ngi sàkku mbégteem di ñaan sëñ Touba si Amadou Muntaxa Mbàkke suñu borom yàggal ko téeral ko ba li mu naan lépp ndi li ko suñ toom def ko ko soobee te ñaan ko ak moom barke maam Cheikh Bamba mu dina di nuyu ak di siyaare kër yi maam Serigne yëpp ak mboolem Cheikh kër maam Serigne Fall yëpp di leen nuyu itam ci turu sëñ maam Cheikh Fall mii toog moom Cheikh Serif Assane moom maam Serigne Fall mi nga xam ne moo jëwee ni liggéey bi. di jëwriñu daayira xidmatu maam Cheikh Ibra Fall bi lëkkale tuddkati yàlla yëpp ci réew mi ak ci bitim réew mu mel ni ginaar bi nga xamee ne sëñ Tuubaa si Amadou Muntaxa Mbakke jox na ndigal sëñ bi Fall mu sëñ Modou Mbenda ngir mu jëm ci njabootu maam Cheikh Ibra Fall gépp mooy bis boo xam ne itam sëñ bi da ko santaane ngir ñu yendoo koo tudd yàlla ci penku jumaa ji bis boo xam ne itam defoon nañ ko fi mu del suwaat nag lëkkaloog bisub alxuraan ak bisub xasaayit waaye lañ ci seddee maam Serigne Fall muy wàllum tur yàlla wi sëñ bi sëñ bi man yëkkati ko teg ko ci loxol sëñ maam Cheikh Fall mi toog ngir mu jiite liggéey boobu yi ni nga xamee ne kuréelu xasaayit yi noonu la amee ci ñoom ndax sëñ bi da ko yëkkati dénk ko sëñ am sa mu sëñ son bi mu jiite ko bu dee ci alxuraan ji itam sëñ bi noonu la ko doxalee yëkkate ko itam dénk ko suñu xabaat mu sëriñ Fallu ku ci nekk am ci wàll woo xam ne loola ngay doxal bu dee ci alxuraan ji ngi ko ñu di ko ci biir jumaa ji bu dee ci xataay di dañ am sa itam lu wër war mooy ji mu di fi jàngee bu dee ci tur yàlla te sëriñ bi dénk itam sëñ maam Cheikh Fall mii ñu di ko dee ci penkub jumaa ji ci barab bii ñu toog nag di barab bi nga xam ne fi la sëñ bu mag bi du jullee xiit barab boo di bokk ci barab yi ñuy séddee ñor fee taxawal tur yàlla yoo nga xam ne ñu koy taxawal ne ca bopp ba ñooy féete ci bopp barab loolu nag moo tax sëñ bi di ci waxtaan ak yéen ak di ci labiré ñun ñëpp ñu gën koo bàyyi xel te xam barab bi ni ñu koy defee am ñu fiy duggee ndax dafa mel ni bi mu njëkkee am yooyu mataa yañ ci jëloon mooy fexe ba njabootu maam Serigne Fall gépp ak seexi kër maam Serigne Fall yëpp bokk tur yi ba sëñ bi taxaw ne am na na ma ko bëggoon amee naa ko nii yoon wañ defoon nag mu jignu yoon wa rek la jaaraat moo tax sëñ bi di xam la ne li ko daggee fii sëf ci barab bii ñu toog sëf ci daaray kaamil ji jàpp fii nga xam ne fi la bi otoy taxaw li ko lépp jaar ci buntu armal yi day doon kuréel boo xam ne mooy kuréel bu njëkk bi waaye suñ demee ba mu xat nag ba kuréel bi koy waddu day continuer man war kër sëñ baara gi jaar bundu kër njenne doog a génn seet fii ñu toog nag waaye ñi nga xam ne ñoo yor bopp si kër nag ñoom ñooy féetee fii ñooñu nag dañoo baaxoo ci kër maam Sëriñ Fall di benn xam ne kenn ku ne yaay gën a mën a yéene daanaka tur yàlla wi te ñu ko séq itam kenn ku da ngay xam ne lu ci lu ci def rek yow defal saa ci amee ndam am nga ci ndam lum ci ñàkk yaa ko ci ñàkk. ci biir loolu nag sëñ bi fas yéene bu soobee yàlla incha allah rabbi six heures du matin fu mu jotee des na yëg ci tur yàlla yi moom fii jëme ko nag cinq ci biir loolu nag ñeewoon bopp si kare nga xam ne ñoo xooloon ca bis bu njëkk ba ñoom rek ko sëñ bi delluwaat mu tàmbalee ci sëñ Mor Ndiaye mi nga xam ne mboolem kuréelu seexi kër Seera Fall yëpp maam Sane Fall yëpp moo naan ca bopp si kar ak ñam ko àndal ak lenn ci murid yi nga xam ne ay turgat yàlla lañ. yu fees te ne ci barab moom moo jiite woon booba liggéey fii itam moo fi moom moo koy jiite bu soobee yàlla ci sujet jooju incha allah su yeggalee itam sëñ Daan Njaay ma nga xam ne moo ci toppoon te ëmboon bopp kër yi mu ëmboon di bopp kër yi buntu kër yi maam Sëriñ Fall ñoom xam ne maam ñoo ca topp ndax ku ci nekk xam nga nañ ko defee woon lan ci jubloo leeral rek mooy leeral ne dara sëppiku ci xanaa ñu bàyyante ci xel rek boo dee sëñ Daan itam moo dem ku mu ko àndaloon rek. wax nañ ko ne ñooñu la koy àndalaat te ñoo ñëpp mooy génn kër gi kenn ku ne mën nga ca wut bu suñ daan àggale itam sëñ Cheikh Mbaye moo cay topp sukkite moom itam ak ñoom mboolem ñoom ko àndaloon rek ñooñu la ko laat ak mboolem bay Fall fi mu mën a ndax benn bopp la ba tey su yeggalee sëñ Baye Fall itam moo cay topp ba baa ñu agsi ci waxtu wi ndax day fekk na ku ci nekk waxtu waxtu wañ la bàyyiloo rek soo bàyyee kay topp coow mu ngi taxaw te waxtu ñu sëñ bi ñaan loo buñ càggale waxtu lañ koy ñaan mu ci cinq heures ji loolu nag li sëñ jublu ci leeral gi muy bëgg ñu xam ne moom nañoo fab kenn rek mu jiite lépp def ko ndax de su ko defee rek ba sëñ ba ñu bëgg ñu ñëpp am ñëpp am nañ ko waaye itam ñoo xam ne Sékar àgg na foo xam ne ak nituwaay bi ak fi mu toll te ñoom ñu ñu lim bunti kër yi maam Serigne Fall yëpp fu ñu ci dem kuñ fa mën a fekk ngay tudd yàlla bàyyi leen xel ñooy ñooy doon sa njiit ca loolee ba saabu àggalee kon day mel ne lu ci def yow lañ ko defal ñoom nag cër la boo xam ne <clears throat> danañ koo cërale ngir fi yéen a toll ak ñoom sikar waaye buñ seetloo ñu leen ko jox ku ci nekk mënal na ko boppam te ku ci nekk itam lañ ci jublu rek mooy nga xam ne benn bopp lañu bu ñuy liggéeyloo waaye jublu suñ maam Cheikh Fall mii teg te si ci loxoom rek moom rek bu ko sooboon bu taxawee mën na ko taxawee ba lépp jeex ñu ñëpp ñu topp ci moom kon nag war ma jëm leen jox delloo ko ñun ñëpp nañ ko bokk xam. te xam ne kenn ku ne ci ñoom rek mën na ko taxee ba mu jeex lu mbooloo bokk nag luñ coormaal kenn na ko yaa koy jiite na xam ne mbooloo mu ñëw ëpp kóoluteem jox ko kon luñ ko def ñoom la ko defal bu war ñu gën ko bàyyi xel bu baax ñun ñi nga xam ne nag ñoo ñi nga xam ne ñoo leen tontu te ñu bokk ñoom liggéey bi ñu xam ne bu ñu yegsee ay ndaw nga fi yoo xam ne fu mu ci wax nit na ko na nga fa dugg rek na xam ne fay ndigalam ne lu baax jëfu ndigal mooy li ko gën fexe ba tënk ci baatam ndigal bi rek mooy li gën ndax ki fi nekk ndax bañ jotee ndigal li barki dem ba sëñ joon tey waxtu woon sëñ bi fi lay yendu ba guddi taw yëpp ci kawam la koy nekk fi di ko ndax dëgg rek niñ ci amee ndam ñu bàyyi xel ne nekk gi mu fi nekk ñoom kon bu yéen ci wutoo nag ban toll ci bis bu ñu ko war la baax mooy ba ñu wutee moom ci genn kaddu du nam ci digle te ay bokkam wóolu ko itam jox ko liggéey bi ñu tënk ci loola ndax barab yi ñu ma lim te ay kilifa ne fa ñu jiital leen ca la ñuy def ku ci nekk baat boo ci wax kenn di ko dindi te baat ak jëfandikoo ci yoonu Baay Faal lañ ko gën a miinee gën koo xam kon nag ñu yokk pas-pas yi yokk pastéef yi te nga xam ne si yi itam ni ko sëñ bi bëggee moo ñu fexe ba ñu mbooloom kër maam Sarañ Faal ñëpp di donga yi di kilifa yi di seex yi ñu bokk teel a dajee te teel a wuy si te teel a itam xam ne liggéey bi moom nañ ko doon bam ci ndam rek loolu loolu tax jàpp yoon wu njëkk wa kat suñ ko daan ba noppi te amuñ ci mbégteem sëriñ bi amuñ ci ndam duñ ñu joxaat mukk yoonu ñaareel wi waaye ndam lañ ci amoon nag moo tax ñu jox ñu yoonu ñaareel wi ngir bëgg ñu amaat ci ndam loola ki ñuy liggéeyloo nag ci koy liggéeyloo moo ko war a liggéeyloo waaye moom mu ñuy liggéeyloo moo ñu war a liggéeyloo te ku ne xam na ne ndigal liggéey kër Sëriñ Tuubaa tàbbi kër maam Sëriñ Fall jëfe rek moo ci am te jaral na itam sëñ bi léppam jaral na itam suñu bakkan ci lépp man soññoo itam wax ne mboolem ñuy ñëw di tudd si yàlla ku ci nekk na nga waaj wàccaay woo xam ne ci nawet lam nekk su doon taw lu ndox mi bëri bëri ñun dañuy jàpp ne ndox mi moom daa sekkar si rek waaye yàqulun dara kon kenn ko na nga waaj waaj woo xam ne soo dikkee du soxla nga wituwaat dara te lu dul suñ daa am ni mu ko bëggoon rek ñu doog a yeewu ko suñ daan ci soññ di soñ ñëpp koo xamante ne bi bii nag yaa ngi dégg kaddu gi li muy àndal muy tur yàlla wi lépp loo xam ne leer nañ na ñuy tudd yàlla war nañ koo aajowoo loo ci mën na nga ko def su dee ndox ñu naan soo ko mënee na ko indi su dee café bu ñu naan soo ko mënee na nga ko fi indi su dee ñam mu ñuy xéwloo te du yàq ci la ñuy def dara soo ko mënee na nga ko fi indi su àggee ci parfum bu mu tuuroo sax ndax tur yàlla day ànd ak gétt gu neex dañ ko def kese mun taa ko nga xam ne sëñ bi ci coobare boppam moo fa bon ci néegu boppam ay parfum génne ko jox ko ñu di ko xëpp loolu nag ku ca mën a roy sëriñ bi loo am ci parfum te mën koo indi nañ ko indi jox ko ñuy tudd yàlla ñu di ko xëppoo di yëkkati tur yàlla yi loolu daal sëñ bànk yi soññe te di soñ ñëpp du soññ mboolem daayira bépp nag ak ñu bokk tur yàlla yi mboolem fu daayira tur yàlla nekk nañ xam ne liggéey bi ñëpp ñoo ko seq ñu teel a ñëw teel a jàpp ci liggéey bi rawatina nag xidmatu maam Sénégal bi nga xam ne itam ñoom la sëñ bi teg liggéey bi seen loxo ngir di ko saytu ñu bàyyi ko bu baax foo a aw soo ci numéro yi ku xamante nam dañ la wax lu ci mën a fa nga war jaar ba am ndimbal li ak tawféex ji ñu ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp nag di ñaan laat baax nag sëñ maam Cheikh Fall mi toog sama borom may ko ndam ndax ndam li mooy sunu ndam barakati maam Cheikh Baat Medina jërë ngeen jëf loolu moo doon kàddu yi jërë jëfati